Assalamualaikum et wabarakatuh, de Mané. Hey. salaamaaleykum téléspectateurs yi ñi nga xam yene yéen a safoo CIK TV euh, ñi ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo euh, di leen magalat baax di leen euh, balu ak ci julli gi nga ci leen yaakaar nañ ngeen ne eh, naman ngeen ñu mais aussi naman nañ nañ leen ñun ah naman ngeen euh, Cheikh Ibrahima Keita le roi de Mandeng. Euh, sëtub Soungutou Keita bi ah nekk ci roi bi macha allah di ko ñaanal rek yàlla guddalu fanam may ko wér ah ci aajo bi nga xam ne yéen yéen a ngi ko am di jóge fu ne di ñëw di sàkku si ci moom euh, seen i itti ak seen i soxla di ñaan chaque jour rek yàlla di di di di jàppandi aajo boobu noonu euh, cheikh bi defe naa naman nga mbokk internet yi naman ñi nga xam ne ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay bëggee ah di di jóge fu di ñëw di di faju si ci yow ñu bàyyi la nga nuyoo rek après ñu daal di dugg ci waxtaan wi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina wa mawlana muhammad ibnu abdallah abu abdallah wa huwa abdullah salawatullahi wa alayhi waaw Modou ñu ngi sant yàlla di julli ci yeneen tàmba di gërëm suñu maam Soundiata Keita mi nga xamante ne ni deretam mooy daw ci suñu yaram ñu donn ko ci xam-xam di ci dimbali jaamu yàlla yi dëkk fii ci Zac di nuyu monde entier di nuyu waa Zac Mbao gépp góor jigéen mag ndaw di nuyu suñu chef de quartier bi di ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm alhamdulilah namoon nañ leen bu baax a baax ñu ngi baalu àq ñëpp Sénégal yëpp monde entier di ñaanal ñëpp jàmm fekkee nañ ko ren yàlla nañ ko fekkee déwéni déwén bi jaaxi nabil Moustapha salaay salaam. waaw seex bi macha allah euh, dañuy dugg ci ci waxtaan wi rek euh, ñu gis ci semaine passée lu lu doy waar. ci li nga xam ne métier mi nga xam ne yéen yéen a ngi liggéey euh, euh, rawati yow mu nekk ndono ci yow euh, ñu dem ba gis ne dañu gis fan yee passé lu xew muy ku jigéen koo xëy ne dafa am benn sëriñ boo xëy ne daf ko rey tey ñu dem ba jàpp ne ñu bëri ragal tey demati ci sëriñ euh, di ko diis seeni soxla wala dem di fa faju ndax gis nañ lu commencé di am ci sëriñ te mësul am ci sëriñ euh, te yow macha allah yàlla dimbali la euh, faj mm, comme ni ñu koy waxee saa su ne da nga koo donn naka nga gisee mbir moom ak bi nga ko déggee nan nga ko dundee. waaw sant yàlla duñu wax lu mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun vraiment métti na ndax ay yu mel nii ñun dañ ko doon dégg rek dañ ko daan dégg rek ci ay dëkk-dëkk yu sori bu demee ba am Sénégal gii vraiment dañ koy mettitlu metti na ba fu metti yem naqar la ndax rawatina koo xamante ne ni euh, nee na ñaankat la fajkat la euh, ba mu jël bakkanu euh, patient am vraiment dañ koy naqarlu di ko mettit lu lu metti la et puis yàq la ci ñun ñaankat yi nga xamante ni faj bi dañ ko donnu donnu xam-xam boo xamante ni duñ def lu mooy di gindi jàmm yàlla yi ci seen jàngoro ak seen i aajo ñun de lu ne faj nañ ko te mosuñoo jël bakkanu doomu aadama yàlla nañ ci yàlla musal yaakaar naa bu dee wàllu sacrifice lay def sacrifice bu ne nit mën na ko def c'est parce que sacrifice mooy sarax. mbiru sarah la rek de tour be reuy wala ñi jangul français ñi xamul lan moy sacrifice mhm. sacrifice du dara lu mooy sarax yow mi jël sa sa juróom-ñaari bekk sukar mhm. diko ko saraxe sacrifice la dang ci ñaan yalla rek mhm. pour yalla antul li nga bëgg loolu la mais sacrifice bay sacrifice nit loolu jéggina dayo deug la lu wër loolu du mbiru xam-xam loolu mbiru salté la loolu loolu salté la waaw ñun ay jinne lañ doon ci suñuy maam. Mhm. waaye loolu xamuñu ko. dëgg la déedéet xamuñu ko. Mhm. yu salte yooyu xamuñu ko. dëgg kooku. Mhm. na yoon def liggéeyam. parce que kooku day yàq deru. fajkat yi day yàq deru ñaankat yi. day yàq deru sëriñ si. waaw ñu ngi koy naqarlu lool di ko metti lu lool. di ma masawu famille xale bu jigéen boobu. di leen sigil ndigaale di leen masaw bu baax a baax a baax nit ñaanlu na ba am lu ne ci ñaan te fekk euh, kenn mosu ko def lu mel noonu kon dafa dajeek bandi rek dafa dajeek malfaiteur yaaw ñuy masawu seen famille lool di leen xamal ni waxu Cheikh Ibrahima Keita démb daanaka ku sukkandiku ci sumay wax yu mel nii du la dal xam nga lu tax dëgg la dama naan man bu ma nekkoon patient di dem di ñaanlu damay dem ci koo xamante ne ni maamam yi dañ leen xamee ci faj. Mhm. wala ay waajuram. dëgg la mais ana yow ana man rek. dégg daw diw sëriñ diw ñëw na rek nga dem ci moom. Mhm. ah man loolu dalul suma xel. dëgg la képp kuy dem di ñaanlu. Mhm. na nga dégg ko na xam ni kooku ay maamam. ñaankat lañ ay ñaankat lañ. nga dégg baayam def na li ak lii ci réew mi. man Soundiata Keita mooy suma maam. ku ko ku jàngul histoire am itam mhm, du umpe ci réew te ku xam Sunjata xam ni. Mhm. xam-xam fa la ne. dëgg la waaw ñu ngi leen di masawu nag fami boobu. Mhm. di leen sigil bu baax di ñaan jàmm ci réew mi. waaw. waaw ah, jërëjëf kooku mooy Cheikh Ibrahima Keita loolu defe naa la doon leral ci ci point boobu ah, waaw top leen ñu rek après ñu ñëwaat ci waxtaan wi. Ah, Cheikh roi Mandé. Hey.